combat buy duré il faut nga sóoraale mën nga bëri ñaari 15 minutes arbitre atte waat deuxième avertissement Mbaye Tine deuxième avertissement Diarra waaye loolu li yëpp xaaroon naa ko. waaw Diarra